Baye Diagne. lu ko indi équipe nationale. performance. non de waaw waaw je suis d' accord. performance benn année la def performance digne de ce nom. Mhm. Kassim Passa la ko def premier parti. Mhm. am 18 bi mhm. mu àggale ji Galatasaray. mu yokk baat bi tuuti rek pour éternité. mu àggale ji ko Galatasaray. ñu yóbbu ko Coupe d' Afrique. te Coupe d' Afrique bi il n' était pas parti pour être titulaire. y avait Mbaye Niang la hiérarchie qu'on respecte en second boo nekkoon Real Madrid di fa titulaire am 20 bi yaay départ fii. Non. Si. Je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi Alou a un projet. Non, non, le projet, non. le projet ne se limite pas que tu joues à Manchester City ou tu joues à ailleurs. Mais là, le projet, mais là, voilà, voilà, voilà, ça, il y a d'autres considérations. Voilà, demande là, demande là. Vas-y, vas-y. Mmh. Nous, on est que Jaraf. Mmh. Je n'ai rien contre Jaraf. Mmh. Ah, football local, les filles, là, les filles, là, nous, on est espérant de Tunis. <laughs> Espérant de Tunis, voilà, Zamalek, voilà, Sundowns, équipe Afrique du Sud, Bob. Am faire 100 buts. wala cinquante bi nga yokk baat bi bay. nga am ku nekk Real Madrid wala Manchester City comme Alan am fa vingt cinq buts. Mhm. niveau yi c'est pas pareil parce que amul vingt bi muy joué xam nga lan lay niru mi ngi na nga nekk bëri kii ba Mbapat kii nekk si champion roi.

du défendre xam nga la non rapport ak Aliou ko wax. non Aliou respecté il a marqué du monde. passé le le joueur sénégalais qui a eu le plus de temps de jeu en Europe. Mhm. c'est c'est 1425 minutes. Et Pape Alioune Ndiaye kenn du le techniquement il n'est pas bien qu'un du il a pris de l'âge il n'a pas été sélectionné est-ce que est-ce que moo Lolo si si. mais quatre cent vingt cinq minutes. mais merci si je peux me permettre ah. tu sais une sélection femmes am des paramètres. je suis d'accord elles am paramètres je suis d'avis Tu nga gis nga euh, damay ñëw ci parce que dafa joxe exemple hors site, man damay ñëw foofu noonu balaa maa ñëw fii Sénégal en 96 la France bi éliminé éliminé 93 la coupe du monde 94 la France avait le meilleur joueur français en Angleterre Eric Cantona il avait d'ailleurs même marqué ci finale bi doon dox ci diggante euh, Manchester United à Liverpool en FA Cup il avait marqué anglais dit Cantona is a god c'est ça lañ doon bind hein? mm-hmm. voilà mais Aimé Jacques woowu ko beneen joueur bo xam te mi ngi toj championnat d'Angleterre mi ngi tudon David Ginola Newcastle

une influence négative. Mm -hmm. Je précise et je recadre bien mes mots. Je n'ai pas dit que Mbaye Diagne a une, une influence, négative. Je n'ai pas dit que Pape Alune a une influence négative. Je ne l'ai pas dit. Mm -hmm. Mais je, je, je, je reviens sur les propos de M. Jacquet, qui est en mm -hmm. Mais vous me demandez, l'histoire lui a donné raison. Et Alun Sissé, loo ko mën a aussi ak mu ñàkk ba ñu yóbbu Mbaye Niang mais ñi mu yóbbu ñoo ñoo jox Coupe d'Afrique bi 2021. et je suis d'avis kon xam nga tey Euh, choix bi dafay nekk loo xamante ni dafay compliqué jour am na talent bay bëgg a dee ñii ñu ne ko fa ñu ko bàyyi ko dem jëli euh. wax léegi de l'ordre au sein de la tanière. loolu tax bëgg bëgg wa wa wa bëgg na xam ni bool kenn du ko ñëdd. ak loo ko bëgg bëgg na xam ni bool. bool ko ñëdd. maa ngi ko koy wax nii gis nga. xam nga man yaa ma woo sa man yaa ma woo bi mu wax nii xoolal exemple bi mu wax nii. yaa ma woo sa a a Raoul González Blanco. Mhm. Ken du wax jour àdduna waxuma Espagne de. te doo tudd avant centre. dem na ba commencé jël âge. Del Bosque xam na ne Raúl mi, su ko yobo coupe du monde il sera pas titulaire et que meuna affecte groupe bi Raoul c'est pas quelqu'un de bavard. Mhm. mu bay ko Espagne. parce que lolu pour pour fekk ko lolu ay choix lo xam entraîneur da ko wara a jël. Marcelin mii ko baye café des sports des sports bi, mu yàq café bi dañ ko tek ko andi Sabel mu tok parce que ça va être mon gagné je salue Cissé. il est sous contrat qui prend fin août 2024. Il y a les échéances qui sont là en mars en juin tant que la fédération là ne lui pousse pas vers la sortie elle ne bouge pas. parce qu'en même temps, il a des certitudes par rapport à son équipe il a été euh, trahi par lui-même et par un schéma défaillant li ko contre Côte d'Ivoire moko ko contre Cameroun moko ko contre Gambie moko ko contre Guinée c'est un schéma organisationnel ce fameux hybride là maa ngi koy gis nit ñi ko toj réseau naan 5 2 3 aluna nag gis nga wax na Estonie wax Bosnie depuis contre la Bosnie Armand Traoré moo a expérimental sur cette défense à 3 moom xamna na wax mbay mi donc commencé ko tey Abdou Diallo bi nga xamné il a été euh, pointé du doigt. L'IM réussirait contre la Gambie et contre le Cameroun, il n'a pas réussi contre, contre, contre, contre, le, la Côte d'Ivoire. Maintenant, on peut, on peut indexer du doigt Aliou. Pourquoi il n'a pas fait du coaching Parce que d'abord, un entraîneur, mais à un moment, tu dois faire du coaching. Faire du coaching, c'est arranger, donner de la voix, orienter, recadrer, rectifier. Alors que MS n'était pas seul à le faire sur le banc. On a même vu des joueurs s'impliquer même au mois du cooling break, parler avec leurs partenaires Alors que nous, chez nous, même ses adjoints, avec leur fameux, avec leur fameux papier, alors que ça, c'est demandé. Il faut, ils doivent travailler maintenant avec, la, numérisation, avec les, les, les tablettes. Les tablettes. Mais est-ce que Aliou a été aidé par son staff C'est des interrogations. Est-ce ah, qu'il a accepté d'être aidé par son staff Est-ce qu'il a accepté d'être aidé par son staff C'est lui qui a choisi Régis Bogart. C'est Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart. Régis Bogart.

c'est lui qui a proposé et amené Régis Bogard. Parce que c'est son ami à Paris. Mm Bogard, moi, c'est adjoint. On peut dire que c'est un mental. adjoint. Il y a quoi tan. Parce que y a une complicité parce que moi que du réagir pour match bi. ne affinité ma mais aji yow non bi il raw. Mhm. allez choisir qui. on peut pas dire que par la direction technique mais Aliou est-ce que bëggoon na dans le passé ñu koy andil un entraîneur local sur le banc c'est des interrogations. loolu peut-être moom mbay la koy baal. non wax ma est-ce que nangu woon na ko j'ai dit est-ce que est-ce que may ko mu eggali may ko mu eggali sinon day day guddal waxal waxal waxal da lay bëgg a tontu. non Amadou Assane local ah, maanaam continue sur cette lancée. maanaam continue sur cette lancée s'il te plaît. non Aliou local xam nga dama nekk local. maanaam continue sur cette lancée Aliou musul diriger benn club en Europe. sinon dama jox mbay seen parole. xam nga xam nga xam nga am na ay limites alors tu continues sur cette c'est parce que sinon des il veut répondre et moi aussi je veux répondre par là euh, euh, euh, Pape est un membre de la direction technique nationale Régis Bogard Aliou lu Moko, mot et Soukou Andé, Andé, ça veut dire qu'il lui fait entièrement confiance. Mhm. dans le passé nous doon gis entraîneur local le entraîneur local les entraîneurs qui sont là dans notre championnat et qui sont là au Sénégal Omar Dak par contre il a toujours dirigé mhm. une équipe de l'Hexagone qui s'appelait Sochaux Montevideo. Mhm. Alou, club yor club il était l'adjoint l'assistant de feu Karim Séga Diouf Il Sénégalais yu bëri yi nga porté Alou à la tête de la sélection parce que tey Doucher, Karim Sega paix à son âme ak at yi mu amone en 2012 man ak mom ñu bokk bande tous ñu nek war def collège wala ñu nek mu nek son adjoint mom mhm. mom mu taxaw à son âge di joxe ay directives man man ma top motax Karim doon délégué Aliou mu joxe ay directives mais Sénégal dafa bëri ay profane ñu baal ma ci football mhm. ñom pour ñom Aliou moy entraîneur bi loolu il a fallu que l'opinion ñu ñu léral ñu xamul waaw ñu xamul ñu leeral ko pour nit ñi xam ne Aliou nekkul woon entraîneur. sànq may expliqué Karim Sékou Diouf mooy entraîneur non je sais man je connais cette génération. léegi léegi Mbaye euh, yow alors tu, as bien expliqué le cas de Aliou Cissé. on a parlé de ses adjoints et tu as bien dit que Aliou moo tànn ñi nga. xam ne waaw moo d'accord mais même su ko moi je peux choisir mes rubriques mhm. je peux les choisir. Mais seen xëy suba ne ma qui, ak kii mooy toog si plateau ok mais su ma neexee du ma la jox parole. Mhm. c'est mon émission. Comment ma neex laa jox parole du dëgg. Donc, Aliou, il peut, on peut lui donner ses suggestions, mais il peut ne pas accepter tes suggestions. Bien sûr. Justement, sur cette lancée-là, Bougon c'est une tout le faux. Après, je vais Timbay Diop, ni vais terminer à JCC. Tu sais, adjoint à c'est un collège. D'origine registre il y a un préparateur physique. C'est le, C'est le staff. Voilà. Bati, Tony Mario Silva, ça, Aliou lui, Indi. chaque entraîneur, ou bien je dirais, chaque banc, a style amna na ban xamanteni bi ni bii adjoint du jog di wax ban marché lo lippi adjoint du jog di wax mom moy taxaw di xëcc ay cigaram di wax lu ko neex wala di replacer ay nitam amna sen seen adjoint di ñu wax le cas de la Côte d'Ivoire bokul parce que sur le banc ma ngi gis ku melni Alain Guamini mais ñom ils ont am nañ benn vécu ñom ak MRC fay amna na lo xamanteni xam jot na fa duggu exactement Guy Demel amna lo xamanteni jot na fa am peut-être ñoom waxtaan nañ seen biir ni ak ni la wara démé maintenant xam nga lan ngay xaar da ngay xaar comme Emerse Faé reconduire nañ ko comme entraîneur principal au Côte d'Ivoire nañ xaar échéance yi di ñëw naka la nar a demee. vent bi naka la nar a demee. Mhm. parce que là maintenant il a les pleins pouvoirs xam nga luñ ne loo loo tiim ak loo téye bokkul. Mhm. maanaam loo tiim ku ci ne mën na ko jël li ma tiim ni teg nii. Aji Cissé am Marceline Mbaye Diop yow ku ci ne mën nga ñëw def nii mais su ma ko téye nii non balaa ngeen koy jël di ngeen wax lu set. Mhm. bokkul ndax war na mën a di wax ak joueurs yi ou mais c'est son style et il le fait Elle hein. mhm. lui parle à ses jours tout un match d'un coup, il gis mu taxaw ci ci côté mais il wax ak joueurs a di maintenant est ce que autoriser les ñeneen autoriser wax. un c'est une autre question Elle lui est censé répondre à ça. la deuxième Omar Daf ah mais non Omar Daf un entraîneur. local mais kon Aliou Cissé xana boog du entraîneur nga parce que Aliou Cissé jàngee ko fi hmm. Europe la ko te Omar it. mais exerce ko mais exerce Europe. wa wa xaaral wa mais waaw mais non jàng bi lañu xam nga tay tay tey tey tey tey maanaam man dama japp ni nit ki tey su fekkoon ne tey Aliou Cissé fi la jàngee ku ci musul dem so moy nga d'accord Aliou Cissé mën nañ il a fait ses ses ses ses ses base mi fi fii la ko defee ah, ses études il les a fait ici mais quand même Aliou était parti en Europe pour étudier. Hmm dafa demone pour jàngi ji ko Omar Dafter fa la ko jàngee peut être wërsëg dafa yemul tey Aliou Cissé tey su fekk na nekkuloon adjoint Kalidou Seck Diouf mais mënul na yore Laurent kisu et c' était bien parti que mu yore Laurent kisu mais Omar Daf dafa fekk ne il a été joueur du FC Sochaux Montbéliard il a eu ses acquis là-bas ñun ñu am ci moom confiance mu pare mu jàng après ñu woo ko mu mais Habib Beye ils sont joué pour l'équipe nationale du Sénégal ñooñu tey suñu ñëwee jël fii nii duñu leen considéré comme ay entraîneurs étrangers ils sont des Sénégalais maintenant nag fi nga xamante ne moom laay tëjee euh, gis nga xam nga su ma nee soo ma nee tey Aliou il y a des échéances échéance gën te reuy trois matchs nga def ko nga jëm 8e de finale. MRC mhm. Faye toog ñu jox l'équipe bi. tu vas me dire que ni ci biir compétition la mais loolu échéance gënu ko rëy. gis nga tay dans la vie. nul n'est indispensable maanaam. ay ñu jàppoon sen bop indispensable rek nek nekk sëg yoof ak feneen ak feneen. dans la vie nul n'est indispensable. c'est lazare tay ak Saint-Lazare tay nit mën na ñëw tay mën nañ indi ben coach xawma kan lay doon un français un entraîneur local à ku Tidol. Nous mu ñëw tey ñu taf ah, Sénégal ces trois prochaines sorties pour gagner ñetti match avec la manière comme te nit mun les trois prochaines sorties mu am ci ay défaites ñu ne ah waraloon avec dans la vie une équipe nationale c'est la continuité. Ben nit mënu fee toog rek nekk fait. Aliou a du mérite Aliou Cissé a du mérite il a eu à hisser l'équipe nationale du Sénégal très longtemps ci classement FIFA le Sénégal a occupé la première place pendant très très très longtemps bravo. Aliou devait montrer quelque chose ci les objectifs qu'il a signés, il les atteindre Sénégal a na le quart de finale 2017 tu sors en quart de finale l'équipe qui te gagne tu qui gagner tournoi bi le Cameroun ok parfait on te demande d'aller à la coupe du monde tu vas à la coupe du monde après ce qui s'est passé le match rejoué face aux Sud-Africains nga xam il s'est qualifié l'autre échéance il fait mieux il va en finale il perdre face à l'Algérie proche échéance bu ci topp gagne la coupe d'Afrique des nations il gagne la coupe des nations bravo une personne ça même su fekkul ay échéance da nga fixer sa bob ay échéance son ne tey un point A man kat d'ici trois jours ah yàpp naa ne loolu mooy nit d'ici trois jours quatre jours cinq jours ba six jours une semaine point A bi wax deug fa yàlla bëgg naa fee jóge nag dem à un point C mais loolu Aliou Cissé l'a compris et ñun ñëpp ñu ñuy bëgg ndam bi yëpp Aliou ñu ko gën a bëgg moom mooy moom mooy empoché prime moom mooy empêche moom gloire bi mm. lépp lu ci am moom koy am tay Aliou Cissé su na tay tay ni tay ni su ko nexé su taxawé CVM su ko brandir ni rek les clubs qatar yi dañ koy jël wala les clubs saoudiens dañ koy jël parce que ña fa nekk ëpp luñ ko CV bu gën bax wa maintenant nak tay su démé sax man fi ma waxee mooy je l'avais dit mu méré ma nak mu méré ma coach dina ko waxat amul problème sama meraatee du graw Aliou bu mu jëlee coupe d'afrique 2021 bi honnêtement amatul leneen lu mun a joxaat Sénégal mu yàqule muy gën a gaaw que mu que ah, mu que baax la ci mu yàqule ci mooy gën a gaaw parce que xoolal jour yi ko ko joxoon ñenn yi gars yi leen di taxé ne màgget nañu beneen génération bu bees de est-ce que discours boobu jàppoon nañ ne discours boobu dina porté waat ci ñii y a yoo xam te ne dafay am tey ñun Sénégal ñu ñëpp bëgg nañu gagné ñun lu ñuy bañee Aliou Cissé Aliou Cissé lu ñuy fayee daf ko jox ñu ko suñu poche Aliou Cissé lu mu ñuy defal gulaar bi moom moo ko am est-ce que nous allons tourner dans malin Marcelin oh, oh, Marcelin Marceline, Mbaye Mon prestige ah. mais quand même il arrive un moment où il faut reculer pour mieux sauter on ne pousse pas à démissionner personne ne peut pousser une personne à démissionner mais on a notre avis Il faut atteindre le plafond de verre il faut autre chose Il faut terminer Marceline su faut tey c'est ah. Sénégal a un entraîneur ñaanuñ ko une ñu dem compétition au quart de finale fait que Cissé ngi ci benn championnat di def résultat xam la ñuy demee. na ñëwaat da mm-hmm. <laughs> il va se reposer il va revenir et en plus le gars tombe malade tout le temps il est fatigué il y a la pression c'est pas le qu'on avait l'habitude de voir. il a maigri hein. ses races ça commence de gëna bari coach mon ami <laughs> coach il est temps que man de man de sax nga sax xaritu xol euh. doo ko foofu laa yem. Ah, am na ko nekk ci ligne bi aji balaa ngaa jël <laughs> parole bi am na ku nekk ci ligne bi Mbaye Diop ñu jël ko dellu si waat allo allo allo allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw kooku sëñ Aliou mu baax mi. moom la de maa ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay fay bu baax. maa ngi nuyu les deux mbay mbay Okara mbay Diop mbay Sène. <laughs> di nuyu aji. di nuyu Malañ. merci beaucoup ñu ngi lay fay di suivre émission bi nag neex na trop nag. Mhm. <laughs> mais mais ñu presque yéen ñëpp yéenay bokk li ngeen di wax mais c'est. Euh, appellation on écoute très bien mais yéen ñëpp yéen a bokk li ngeen di wax par mais bi ngeen koy waxee mu wuute. c'est ça. waaw ah, moo tax euh, maa ngi doon suivre attentivement ci li ngeen di wax mais au fait c'est pour euh, tamit ñëw ba jox sama benn point de vue par rapport ak Aliou Cissé. Mbaye. Eh, li nga mujjee wax laa ñëw xam nga tey adduna eh, moo xaw a yéeme. Mhm. ci àdduna exemple Aliou Cissé mën na fi jóge ñu ni beneen entraîneur ñu toog premier bi ñu qualifié pour catastrophe aujourd'hui tey naka la ñu war a xalaatee équipe nationale lan moo ci manqué ci compétition bi est-ce que c'est juste Aliou Cissé ou bien est-ce que juste dafa manqué staff bu baax même moo indi staffam. Mhm. est-ce que eh, c'est c'est l'environnement la fédération est-ce que c'est pas la préparation on a raté ci kan ko ne pas se focaliser juste sur une personne euh, sur une personne peut-être que moom euh, la pour mhm. mais est-ce que la war la la fédération ñu ci fédération euh, technique qu'est-ce qui a rafetlu ci Côte d'Ivoire bi est-ce qu'on a une une bonne préparation balaa ñuy dem ak di un exemple rek ak bu ñu amoon encadrement boo xam dara ak li nga xam ne baax na je suis pas contre le mariage de Sadio Mané mais moment boobu ñoom suivi c'était pas le moment ci en yëpp ci encadrement environnement bi la yaa ngi liggéey qui sont y a tellement de choses yi nga xam ne man tool li ñu doon wax à général lan moo tax ñu perte bu ñu ko tegee est-ce que c'est juste l'entraîneur si c'est entraîneur bi moom kese la mën nañ ko dàq donte entraîneur def na erreur. Mm-hmm. la des bien joué ci euh, anam mm-hmm. mais attention si bi ñuy gagné c'est-à-dire pour Nous na ci bi. na ko mais na ci mm-hmm. à dire ci li ngay wax bi bi minutes c'est deux contre quatre dans le milieu donc qu'il fallait il faut que Abdou Diallo ñu ko défense mun a monter le militaire c'était juste simple comme il l'a pas fait erreur de coaching la mënoon na ko génn dugal un Gana Gueye wala un Nampalys un Nampalys mu mënoon génn match bi. Mm-hmm. à ça ci ci ci euh, mu ñu war a am ci université moi je dis encore une fois nañ def am général. Mm-hmm. ne pas se focaliser ci Habib parce que comme ni nga ko waxee mën na continuer réussir et on dira qu'il a macha allah parce que bu muy mm. gagné coupe d'Afrique ça c'est très difficile. effectivement xamul dara xamul dara ñu maintenir ko xamul dara kan moko maintenir c' est l' environnement c' est la fédération moo ko maintenir alors le cas mën nañu ko aussi sax président de président de la xaw na ci taxaw parce que moo ne bu ñu changer, dara boy wuti dara do télé a yàqamti loolu ci Matar Ba le ministère des sports aussi tablé ministère des sports bi daf ci réussir donc pour gagner quelque chose ça tout un environnement est ce qu'on doit focaliser juste sur lui est ce qu'on doit revoir. Mm qui ci commencé ministère du sport fédération ba egg pour ñu mën a amaat hmm. la question que je me pose Voilà laa bëggoon posé quoi ñu xalaat merci beaucoup. merci merci beaucoup Alioune ci sa pertinence ak euh, farlu gi ngay am di woote chaque matin alors <laughs> rapidement Mbaye Sène tontu la aji aji doore ñëw ci moom it ci li mu bëgg wax ma jeexal ci Mbaye Sène ñu dugg ci suñu sujet. ok bon ça est vrai Alioune ñu ngi koy jaajëfal moom c' est un fidèle auditeur ah. ci émission yëpp dañuy gis ni day dugg ci kër gi la bokk jaajëf ci kër gi la bokk. mais xam nga mariage Sadio Mané. dinañ ciy tudd jàpp nañ bo xam nga ci ne na sa xalaat mhm. mais madame Sadio Mané amu ci amu ci rapport wa tay léegi ah non dama japp ni kat ni xam nga mais c'est pas c'est pas la première personne à avoir c'est pas la première personne les internautes disent ça tous les jours même aussi sax suñu ben grand suñu ben grand doyen aussi wax na ko bu mag nee est-ce que non mais attends watàngoor mais mais loolu mais mais loolu ban pertinence la am amul benn pertinence pour moi à mon avis bonne pertinence la am et d'ailleurs on parle de mais fi ku ci ku fi bëggul am jabar mais il bëgg pas jabar mais mais mais pour moi, au contraire ça ça te regarde, pour moi ça te regarde et et et et on l'a vu c'est un c'est un professionnel c'est un professionnel Marceline soo me permet permettre une anecdote il wax a nga double confrontation vous? bi nga xamante Sénégal à na avec avec euh, euh, euh, Rabat je pense que Eswatini la une bonne équipe encore avec Bosnie Havre. Moi, je ne fais que Havre. dama demoon Rabat ah, ah, ah, ah Casa def match bi Anfa la woon sax def match bi après ñëwaat bi may jógee foofu Anfa di delluwaat Paris Havre boobu fekk na les joueurs seen avion bi dafa tardé woon ñëw ñoom ñi nga a dem le matin ñu ngi amoon vol ngoon gi vers les coups de 16 mais fa lañ leen bàyyi aéroport ba pratiquement man falaa laa leen bàyyi boog sama volu 15 heures fa leen bàyyi ba ñoom ay 17 heures ay 17 heures 18 heures ci lañ ñëw mais bien on devait voir je parle sous le contrôle de Abdoulaye Thiam président ANPS. nous que Sow pour un truc régler à Paris un hôtel bi nous parce que nous des Dockers le ni dem mais j'ai trouvé Sadio Mané le convoi de voyage nous nous mm-hmm. je l'ai trouvé masque ko di daw ci tap bi ne nga vu, je ne ko mu ne ko mais booy bi xanaa du noppalu mais booy bi mais booy bi il est toujours ci la ko ne laay mun naa mu ko booy bi il sera un un futur grand joueur. Mhm. parce que dafa gëm li nga xam ne moy entraînement ak sérieux ak professionnalisme. ba mu sax mooy tooñ du colibali ak Lamine neen vous au lieu de dormir là venez vous venez vous entraîner yaa ngi dégg. Mhm. et pour c'était juste ben anecdote rek boo xam te ne la ko doon tënk. gis nga xam nga tay suñuy wax bateau bi ki ko porté Aliou Cissé moo ko parce que c'est le sélectionneur national le football est ingrat. Tes joueurs peuvent te lâcher. Mais sanction, tu es en tant qu'entraîneur. Tu es Dernièrement, la France, Didier Deschamps a remporté la Coupe du Monde. Oui. Mais regarde, tous sais ce que les Français ont dit à l'Euro même toi, 8 de finale face à la Suisse, je pense que c'est ça, au tir au but. Mais non, le Grec a dit que non, on va voir le cas de Deschamps, on va l'auditionner, on va l'entendre. Et pourtant, il a remporté la Coupe du Monde c'est le plus critiqué. mais mais mais football amul lolu, amul lolu. dafa ingrat beaucoup ak ay match yooyu ñooy ànd war nañoo dé dé déedéet football amul état d'âme amul yermandé, amul sentiment heure boko défé do am résultat yi ngay xaar. Hmm. Lolu lay tontu. Aliou waaw ñëwal ci moom si Mbaye Sène fu waxé. pour dire man damay wax Aliou Cissé merci beaucoup. Hmm. lu tax ma kay wax 2002 ba bo ma ngi am lan 5 ans 6 ans La doon rêvé pour am coupe donc 2021 mu andil ma coupe kooku dama koy remercier et pour dire que Aliou dafa weer dafa war dem wala warut dem je pense que dañ ko war a mu yeggali mandat am bi ko fi desee parce que tay ku nek l'erreur est humaine de ku nek da ngay juum té des fois ces joueurs sa mën nañ la juumloo c'est staff technique mën nañ la juumloo donc li amone Côte d'Ivoire Sénégal Côte d'Ivoire du né Aliou Cissé kessé la waxna ko fi té dama koy waxat du mom kessé équipe technique bi la ak les joueurs ak mom c'est ça mais dañ koy nangul juum mais pour une prochaine fois doto ko defati et je sais que ne Aliou benen yone du def li mu nga xam ne def nako mhm. diko dal dal nako mhm. et aussi de l'autre côté les sénégalais diko critiquer diko saga et loolu dafa ñaaw sénégalais xam nga lu mu xam nay neex rek té football non la mel. tey day neex suba fay nakari donc ñu bayyi ci xel day neex bay sen mu ngi reetaan nee na Aliou dafa sonu ba rasam bi yoy noonu <laughs>

c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire, euh, je parle en tant que joueur, en tant que sportif. Mm -hmm. C'est-à-dire, tu as parlé tout à l'heure de Baïnian, de regroupement Je parle de l'environnement. Aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, dans les de c'est-à-dire un joueur qui n'a jamais eu de femme, d'ailleurs, famille, qui n'a jamais eu, il y a un regroupement, le game. C'est-à-dire, c'est la psychologie. C'est-à-dire, il y a déjà. Il y a une compétition. c'est-à-dire foofu laay waxee c'est-à-dire benn moment nga nekk ci dara jékki-jékki rek leneen ñëw ñëwaat sa kaw est-ce que c'est gênable ou pas foofu laay waxee quoi c'est pas yàlla mooy dogal mariage telle heure la telle heure la je parle pas dans ce sens. je parle ci par est-ce que est-ce que tey loolu ça pas joué un coup sur Sadio. par rapport il a joué ok ce match ba yooyu muy rafet di di ko Crépin di baax mu koy rafet si on connaissait Sadio bu njëkk du ko du ko donc il faut pas waxee quoi est-ce que loolu sooy ba amul ci benn impact ci ci environnement am ci loolu foofu laay waxee c'est-à-dire nit ki nan nekk ci dara environnement xaw changé tuuti mu mu mu mu mu am effet bu muy def ci moom. loolu moom alaaka xaalis day am. foofu laay waxee ci mais pas moo tax ma ne le football aujourd'hui c'est tout un environnement est-ce que préparation bi lépp nekkoon na yemb na ah. est-ce que na est-ce que na hmm. moo tax man bu ñu focaliser wu ci kenn rek ñu focaliser tout dans tout un environnement ñu xool lan moo ci baaxul woon ñu rectifier ko avancé merci beaucoup Aliou leral bi amna solo merci beaucoup Aline alors Mbaye Diop il veut parler Mala wa Mbaye Diop il faut ñu bàyyi ko mu wax. taw de Mara même wax loolu. mais même su bëggoon wax lolu mo wax na limu bëgg wax baa leen lolu la. Sadio Mané je pense que changé l'environnement. Mm. Mm. état civil la changé. environnement voilà mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui s'est rajouté à son. non non non d'accord mais environnement mi nga ko nekk ak lion environnement ou euh, tanière bi loolu changé wul. Mm-hmm. te jour bi ñu naan ay eh, dafa gën dem seeti jabaram deux heures temps lan lay yak ci liggéeyam. dafa dem mais est-ce que dafa seeti jabaram. non attends loolu la ñu loolu la ñu mais man lima bëgg laaj moy Sénégal Aliou Cissé dafa am immunité wala kenn amul droit wax wala kenn amul droit dakh ko. kenn waxul loolu. Ah, si suñu taxawé na Aliou Cissé kañ la fi nek 9 ans personne ne l'a fait ici Aliou Cissé je me rappelle en 2014 biñu jëgé Coupe d'Afrique Bata. 2013 qualifié wuñ Côte d'Ivoire moo éliminé fi moy mm-hmm. bi ñom Ousmane Mané don don doon nañ ko wax fi dem légui 2014 bi ñi dem Coupe d'Afrique ak Jires 2015 mais dafa bañ ni du don adjoint mm-hmm. dañuy nommé Jires ni ko nekkal Sogo mu ni non non su nekkul titulaire du jël équipe bi mais Aliou Cissé ñu introniser ko titulaire objectif bogo fixé mu atteindre ko légui ñew bi atteindre ko ñu ni kenn ko laal. Mm-hmm. il faut ñu lever immunité am pour ñu mën ko laal. mais mën nga ko laal mais. attendez mën nga ko laal mais pas nga koy nga koy wax ci yenn yenn anamu wax yu ñaaw. yoo xamante mais mën nga wax. Aliou Cissé ka def juum na wala def na lii ak lii mais bul ko saaga. non mais un peu de respect ah, non non non supporter yi on parlera en tant que plateau bi la ñuy wax. ñooñu ko saaga ci biti les gens ñëpp dañ ko ñaawlu. waaw non bi may wax man foofu laa doon waxee man loolu laa. lan laa bëggoon leeral depuis cinq ñi ngi naan euh, Aliou Cissé non dafa ñëw équipe nationale. rapidement Baye Diop du gendarmerie ba muy ñëw naan damay yar nit ñi damay lii. Mhm. yaa a de ces jours su ko doon jéem a yar mooy tëb. Sadio Mané miy toll si digg dooleem bu ko écarté woon mooy dem am na ay jours yi nga xam ñoo incarné équipe tey mi ngi mel ne nga dem France bëgg ni Mbappé du fi ñëw. Mm. yow sa dem moo gën a yom dem Mbappé. qu'on se dit là la preuve Mbappé sax moo tëbal. sànq da ngeen di wax waxu Mbaye Niang. moo tëbal le exemple exemple sax laa joxe. kaawu Mbaye Niang mais Mbaye Niang mosul toj équipe nationale. Mbaye Niang amul sax bi Mbaye Diagne amul sax 5 bi équipe nationale. mais mënuñu ko fi défendre mbay Diagne benn année bu exceptionnelle la def si carrière am Mbaye Diagne juif moo ko jaar na juif def fa dara ñu abal ko Belgique mu dem Chine. joué fa après dafa njëkk dem sporting sax test bi àggale ko mu dem Chine wuti xaalis. merci beaucoup moom da ngay bañ ba di wax. merci nag Aliou Cissé baal ma rek. mais très rapidement Mbaye Diop parce que temps bi ñu man pour man incontournable fi ba xamante ni mënuñu ko fi remplacer parce que.